mbokki spectateur de la 2STV maa ngi leen di nuyu émission au gallo tey ñoo ngi ci septième journée bu comité national de gestion des courses hippiques du Sénégal muy am fii dimanche 17 mars ci hippodrome Ndiaw Macodou Diop au programme ñu am 65 chevaux mu nekk course yoo xam ne course yu am solo la première course bi muy PTA yi ñu nekk 13 partants war a dew distance 1650 mètres deuxième course bi mu nekk PDA ñu nekk 16 partants war a daw distance su 1200 mètres troisième course bi nekk groupe 3 bi ñu nekk 16 partants war a daw distance su 2200 mètres quatrième course bi mu nekk groupe ñu nekk 10 partants war a daw distance su 2200 mètres cinquième course bi mu nekk group 2 ñu nekk 10 partants war a daw distance su 2200 mètres ñuy jaajëfal Issa Gueye exclusif Niania Couture waaye di jaajëfal ki nga xam ne mooy coordonnerie Momar sa gay muy MLG nekk Dangu Sud en face Juma Tukuleur ci liggéey bu rafet bi nga xam ne mi ngi koy def ndax dàll yi nga xam ne moom laa daloo tey moo ma ko jox. ma ànd ak Ndiaye ñu dugg ak yéen ci biir course bi wan leen li nga xam ne moo am ci septième journée bu comité national de gestion des courses hippiques du Sénégal. terroriste. Propriétaire Rian Sidi Mohamed Nyon, jockey Mohamed Gadiaga. Numéro 3, Satrek Vitale. Propriétaire Pape Ngoy Ndiaye, jockey Alassane Sek, corde numéro Numéro 4, Maouloud Propriétaire Modou Cham, jockey Serigne Baké Cham, corde numéro Numéro Dolly. propriétaire Ibakolle Bao Jogengan Dien corde numéro 4 numéro 6 Mambo King propriétaire maître Moussa Mbaké jockey Ablaye Kassé numéro 5 numéro 7 Adja Daba Diouf propriétaire maître Souleymane Dene Ndiaye jockey Fallou Diop numéro 12 numéro 8 Volti propriétaire Pape Major Fall Joké Mbaye John corde numéro 8 numéro 9 Damel Teigne propriétaire El Hadji Malick Fall jockey Pape numéro 7 numéro 10 Baraka 2 propriétaire Gora Seck jockey Saliou Kobar corde numéro 6 numéro 11 Khoureya propriétaire Adama Bawo jockey Sidi Sow corde numéro 10 numéro Santati propriétaire Oumar Bao Junior Joké Mbaye Diène Diallo corde numéro 3 numéro 13 Ngoné Latir propriétaire Ngoné Ndiaye Joké Momad Dieye corde numéro 13 13 partants pour une distance de 1650 mètres que le meilleur gagne dans le fair play et dans un esprit chevaleresque jóg nañu jóg nañu génn nañ ci box yi waaw Mantoulaye moo nekk en première position deuxième position Maoulou 2 deuxième position Maoulou 2 waaw Mantoulaye moo génn jockey bi kawar mooy Modou Dieye Damel Teigne ñëw na en deuxième position jockey bi ko war jockey solitaire la muy le doyen des jockeys muy Pape Nying Pape Nying moo war Damel Teigne troisième position Auguste troisième position Auguste ndax tey am nañ juróom-ñaari xacc yoo xam ne dañu bokk ci course bi tey na xacc xam nañ ne tàngaay dafay mën a daw Bàcc Diop xam nañ ne xacc tàngaay dafay mën a daw Bàcc Diop am nañ juróom-ñaari xacc yu bokk ci course bi waaw Mantoulaye moo jiitu Damel Teeñ en deuxième position en troisième position Auguste en quatrième position en quatrième position quatrième position mooy Mawlud 2 Mawlud 2 moo nekk en quatrième position ki nga xam ne moom mooy Mantulaay tey dafa xëy génn loolu la def dimanche bi passé waaye jockey yi ma ko seqal ki nga xam ne mooy Pape Ñing la war Damel Teeñ ak ki nga xam ne moom mooy Modou Gadiaga war Auguste war Auguste waaw Mantulaay jox na leen benn longueur Mantulaay jox na leen ñaari longueur Auguste ñëw na Auguste ñëw na en deuxième position Augustin ñëw na Ngoné Latir en quatrième position Ngoné Latir quatrième position Ngoné Latir Ngoné Latir quatrième position waaye Augustin mi ngi ñëw ci kaw Damel mi ngi ñëw ci kaw Mantulaay Augustin ak Mantulaay Augustin ñëw na ci kaw Mantulaay Augustin ñëw na ci kaw Mantulaay Augustin ñëw na ci kaw Mantulaay Augustin en première position en deuxième position Mantulaay en troisième position Damel Teñ waaw Ngoné Latyr ñëw na ci kaw Damel Teeñ Ngoné Latyr ñëw na ci kaw Damel Teeñ waaw Ngoné Latyr ñëw na ci kaw Damel Teeñ Auguste Mantulaay Auguste Mantulaay Ngoné Latyr Damel Teeñ Auguste Mantulaay Ngoné Latyr Damel Teeñ premier numéro 2 Auguste deuxième numéro 1 Mantulaay troisième numéro 13 Ngoné Latyr quatrième numéro 9 Damel Teeñ cinquième numéro 7 Adja Daba numéro 7 moo jël cinquième Adja Daba numéro 7 moo jël cinquième xaali xaali tey nekk na rawante bu rëy rëy ndax Auguste gis nga ko ni nga xam ne def na ko bii mooy sept participation mu am ko am ñetti réalisation ñetti deuxième ak benn quatrième kon Auguste nañ jàpp ginnaaw Cotonou ñëwul mooy favori ci poulain de trois ans yi ndax am na sept participation am trois réalisations ki nga xam ne mooy Auguste am ñetti deuxième ak benn quatrième mi ngi bokk écurie Adja Thiou Diop. deuxième course PDA. poulain de deux ans seize partants distance mille deux cent mètres numéro un incha allah propriétaire El Hadji Babacar Fall jockey Mohamed Sissoko corde numéro sept. numéro 2 Chalala propriétaire Malik Ahmed Diop jockey Djibril Ba corde numéro 6 numéro 3 Black propriétaire Abdoulaye Ndoye jockey Saliou Seck corde numéro numéro 4 Samba propriétaire Abdoulaye Aliou Ka jockey Mor Thiongane corde numéro numéro 5 Missane Dasis Oumar Ndiaye jockey Abdou Diop corde numéro numéro 6 Destiny propriétaire Major Diak jockey Fallou Diop corde numéro 10 numéro 7 Talisman ex BP Ndeye propriétaire Moustapha Hachem jockey Alassane Seck corde numéro 15 numéro 8 Ndigal propriétaire Alioune Diouk jockey Bamba Ndiaye corde numéro 5 numéro 9 maître Binta Thiam Diop propriétaire Issa Gueye Kobar corde numéro numéro 10 Assane Fall propriétaire Samba Jockey Yamar Gaye corde numéro 2 numéro 11 Aïda Nafi propriétaire Ali Thiaw Jockey Gora Gaye corde numéro 13 numéro 12 Diakher Ndour propriétaire Ibrahima Seck Jockey Adama Diouf corde numéro 12 numéro 13 Aliou propriétaire Thiané Ndiaye Jockey Oumar Sarr Diallo numéro 11 numéro 14 Adjibou Rafet propriétaire El Salif Diène Jockey Mbaye Diène Mbaye Jockey Mbaye Dione numéro numéro numéro 15 baax na ba tey propriétaire Omar Sow jockey Mbaye Diène Diallo corde numéro 4 numéro 16 galopeur propriétaire Abdou Khadr Mbaye jockey Modi Kassé corde numéro 9 16 partants distance 1200 mètres waa génn nañ ci box yi génn nañ ci box yi waaw fi mu nekk nii li ñu doon xalaat di ko tiit amul ñu nekk 16 partants Misaan moo génn tafu ci ligne bi waaw incha allah ak Misaan yoo génn eh, Misaan ak incha allah ak Black. incha allah waaw am na jockey bu daanu waaw am na am bu daanu am na jockey yu daanu waaw def na incha allah Misaan ak incha allah Misaan incha allah Misaan ak incha allah Misaan ak incha allah Misaan waaw nekk na course bu rëy a rëy nekk na course bu rëy a rëy waaw waaw waaw kooku moy satrek vitale talisman mooy fasu Moustapha HM talisman moo nekk deuxième position troisième position ki nga xam ne ki nga xam ne moom mooy jockey boobu nga xam ne moom mooy moom mooy Mamadou Samba Mamadou Samba waaw ki nga xam waaw jockey bu mag la jockey talisman Alassane Seck la jockey bu mag la waaw numé premier numéro 7 talisman deuxième numéro 5 Missane troisième numéro 4 Mawlud 2 troisième numéro 4 Mamadou Samba am na jockey yu daanu nañu dem xool mooy mooy numéro bi mooy mooy numéro 6 bi. This is my family and we are so Merci. <laughs> La troisième course est réservée au groupe 3. 16 partants pour une distance de 2200 mètres. Numéro 1, Arif. Propriétaire Idriss Agnon, jockey Momad Gueye, corde numéro 9. Numéro 2, Massache Wakhla. propriétaire Ibrahima Ndiaye jockey Ablaye Kassé corde numéro 13 numéro 3 Borom Bagdad propriétaire Ibrahima Ndiaye jockey Ousmane Ka corde numéro 4 numéro 4 Rajab propriétaire Ababacar Sédikh Diagne jockey Mohamed Gadiaga corde numéro 1 numéro 5 Mara propriétaire Modou Diané Diop jockey Oumar Sarr Diallo corde numéro numéro 6 Ndeye Fall 3 propriétaire Samba Koura Diop 7 5 TV propriétaire Ali Thiaw jockey Chérif Badiane corde du numéro 16 numéro 8 Awa Bakari 9 Adja Dior propriétaire Samba Koura Diop jockey Pape Sourax Diouf Fallou Diop numéro 10 numéro 12 Ali Salam corde numéro 14 numéro 14 Barakatou propriétaire maître Moussa Mbacké jockey Djibi Diop corde numéro numéro 15 propriétaire Aliou Ley jockey Njime Ngak corde numéro 15 numéro 16 Weddi propriétaire professeur Sakhir Thiam jockey Saliou Kobar corde numéro 6 par partants pour une distance de 2200 mètres que le meilleur gagne. Xaali euh, Ndiaye nekk na course bu ubbeeku ndax xam nga dafa ay mool yoo xam ne ñetti at la ñu am génn nañ ci box yi génn nañ ci box yi ñu ngi raj rajloo ñi ngi raj loo groupe 3 bi la Arif génn na waaye jóg na joke bi jog na numéro 2 bi moo génn Massathie wax la moo génn jockey bi ko war moom mooy Ablaye Kassé Arif jockey bi ko war mooy Momad Dieye waaw waaw xam nga 2200 la xaali kenn du ko marchanté ndax am na fas yoo xam ne ñu ngi seen biir bi ay fasu deuxième tour ma sàcc wax la borom Baxdaad joke Ali Salam moo daanu muy numéro 12 bi muy Sidi Sow waaye gaañuwul Sidi gaañuwul Sidi Sow waaw Sidi moo daanu waaye gaañuwul al Ali waaw tey rawante bi waaw rawante bi tey dana jaxasoo am nañ 800 mètres léegi ñu buukulee li nga xam ne mooy 1000 mètres yi mu dese leen 1200 mètres waaw ma sàcc wax la Arif ñëw na ci kanam dawal nañu rajab dawal nañu rajab dawal nañu rajab dawal nañu rajab waaw ñoom ñëpp def nañ avancement. def nañ avancement ah Adja Dior ñëw na Momad Dieye Momad Dieye Rajab moo Rajab Mohamed moo ko war Rajab wa bu mag la ñoom ñaar la Momad Momad Dieye la moo nekk ci kanam ak Arif waaw ki nga xam ne moom mooy Mohamed Gadiaga moo war Rajab Mohamed Gadiaga Mami Ngone ñëw na Mami Ngone ñëw na waaye dawal nañu président Cheikh dawal nañu président Cheikh nañu président Cheikh Rajab génn na ci kanam Rajab Rajab génn na ci kanam Mami Ngoone président Cheikh ñëw na ci biir président Cheikh ñëw na ci biir Rajab jox na leen ñaari longueur Rajab jox na leen ñaari longueur 200 mètres moo leen dese à l'arrivée 200 mètres moo leen dese Rajab Rajab génn na. Rajab génn na Rajab génn na Rajab génn na Rajab génn na président Cheikh Mami Ngoné premier numéro 4 Rajab deuxième numéro 15 numéro 15 Rajab deuxième Rasoul premier Rajab deuxième Rasoul waaw jockey jockey Rajab Mohamed Gadiaga jockey solitaire la moo war ki xam ne mooy Rajab bu écurie la Saint-Louisienne moo war Rajab bu écurie la Saint-Louisienne mu ñëw raw premier Rajab tey moom moo raw premier. maa ngi fii ak Papa Diadia Papa Diadia gis nga Rajab tey dafa changé choqué indi ki nga xam ne mooy Mohamed Gadiaga waaye gis nga ni nga xam ne Mohamed noonu la dawale bi ñu amee bi ñu jógee ci tàllalum kaw mi muy cent mètres yi ci la ñëw nag ci kaw Arif daal di nag génn. daa di deux jours daa di dawal kërfal jël premier tey muy septième journée bi muy jockey solitaire. wax nga dëgg Amadou Diallo xam nga Rajab dafa wane tey ni mu ni mu toll mu ngi jógee écurie nag la Saint-Louisienne waaye xam nga moom trois quarts de la ndax Rajab doomu Bermeko la Bermeko doomu docteur Fon la docteur Fon Chris S Chris S Roberto waaye kan mooy yaayam Ridwaanu Laay nekk doomu El Capone tey ñu daal ba pare Rajab jël premier kon ñu ngi versé ki nga xamante si nii. moom mooy la écurie waa Saint-Louis seen yëpp ñu ngi leen di félicité waaye ki nga xam ne mooy deuxième di Rasoul mu ngi jógee da écurie réew ni ba préfet Sakhir Thiam nekk doomu Las Mango Las Mango carré woon ñu ngi sigi consultant seur Amadou Diallo waaw gis ngeen ni mu demee amagul Ilimane Ilimane amagul ci li nga xam ne mooy groupe 3 bi chaque dimanche ñu am surprise bu bees dimanche bi ñu génn président Cheikh moo raw tey Rajab moo raw bu maître Souleymane Diagne bokk écurie la Saint-Ligène jockey bu mag nag moo ko war muy Mouhamed Gadiaga nam daal mu xale yi ne te mag ñi ne fa dañ koy toppatoo Sénégal le numéro 8 Alfat moom la ñuy xaar pour def la présentation de la quatrième course réservée au groupe

10 partants pour une distance de 2200 mètres. Numéro 1, Faïdou. Propriétaire Idriss Agnan, Joké Mohamed Gadjaga, corde numéro Numéro Nasrullah, déclaré non partant. Numéro 4, Général Bara, Diane Diop, Joké Oumar Sar Diallo, corde numéro Numéro 6, Propriétaire Oumar Bao Junior, Joké Djibi Diop, corde numéro numéro 8 Alfat numéro 9 Bidéewu Njàmbur numéro 10 Maxa 9 pour une distance de mètres que gagne dans le fair play lii mooy euh, les cracks adultes waaw gé ubbi nañ box yi ñu génn génn nañu jóg nañu groupe 1 waaw duma yéen moo génn duma yéen moo génn biddewu njàmbur mooy numéro 9 bi génn na waaw biddewu njàmbur moo génn deuxième position duma yéen waaw alfat alfat xale bi ko war moom mooy Elie Diop Elie Diop gëjoon nañ ko gis ci dawal bi waaye jockey solitaire la tey ay jockey yu mag rek ñoo war jockey yu mag rek ñoo war ay jockey yu am expérience waaye du ma yéen biddeewu Njàmbur général Bara very good major Alfat ak Maxa waaw biddeewu Njàmbur moo nekk ci kanam ba tey deuxième position duma ma yéen boucler nañu 1000 mètres yi mu dese leen 1200 mètres tey Bathie Diop di ngeen gis rawante bu rëy bu ñu demee ci tàllalu 500 mètres bi. ci lañuy def avancement bu ñu demee ci tàllal bi ci la ñuy def avancement waaw duma yéen génnaat na duma yéen génnaat na waaw waaw duma yéen a ngi ci kanam jox na leen ñaari longueur duma yéen jox na leen ñaari longueur Medina génn na dawal nañu faydu dawal nañu dawal nañu général Bara dawal nañu faydu dawal nañu général Bara dawal nañu maxa dawal nañu maxa dawal nañu maxa dawal nañu duma yéen nekk ci kanam duma yéen Medina Faydu duma yéen Medina Faydu maxa ñëw na cinquième position général Bara cinquième position général Bara waaw tey dina nekk rawante bu rëy fii ci hippodrome Ndiaw Macodou Diop waaw ah waaw duma yéen duma yéen maxa duma yéen maxa Medina duma yéen maxa Medina Faydu duma yéen maxa Medina duma yéen maxa Medina duma yéen maxa Medina premier numéro 10 maxa waaw waaw Faydu Faydu Faydu premier maxa premier maxa deuxième diggante Faidou ak euh, Médina deuxième diggante Faidou ak Médina maxa tey dafa def si course de rentrée tey dafa def course de rentrée wane boppam tey maxa dafa def course de rentrée wane boppam tey maxa wane na boppam maxa mi ngi bokk écurie réunie bu professeur Sakhir Thiam maxa mi ngi bokk écurie réunie bu professeur Sakhir caam maxa tey raw na deuxième bi ci diggante ki nga xam ne mooy faydu la ak Medina. Sénégal kaw lay ne te fu ndam te am nañ fa jël mono sénégalais bi mbono muy groupe 2 ñu nekk 10 partants war a daw 10 sans sous 10 sans Joké Mohamed Gadiaga, corps du numéro 7. Numéro 2, Adja Kollefar du numéro 10. Numéro 3, Nyodi, propriétaire Omar Bao Junior. Joké Sidifal, corps du numéro 3. Numéro 5, Trève, propriétaire Omar Bao Junior. Joké Ablaï Kassé, corps du numéro 1. Numéro 6, Ningser Jimdiaï, Joké Ngimengak, corps du numéro 3. Numéro 7, Altaï, propriétaire Diallo corde numéro 6 numéro 10 Baax propriétaire Pape Moussa Thiam jockey mo 10 10 partants pour une distance de 2200 mètres que le meilleur gagne course la nag boo xam ne course bu ubbeeku la ndax gis nga group 1 bi ni ñu dawee Alphate dafa def course de rentrée ñëw nag def li nga xam ne mooy première réalisation ki nga xam ne mooy makha Maxa dafa def course de rentrée créer yi nga xam ne moom mooy surprise ndax bëriwul fas buy def course de rentrée ñëw raw ndax fas yi daw nañ tey six journée génn nañ ci box yi génn nañ ci starting block yi altaay mooy xacc bu weex bi altaay génn na le numéro 7 le numéro 8 le numéro 8 moom mooy Nelenka Ousmane Sow jockey solitaire la Ousmane Sow raw na grand prix chef de l'état ci Daaru Salaam Ousmane Sow raw na grand prix de la renaissance africaine ci daar es Salaam muy jockey boo xam ne jockey bu mag la waaye kii nga xam ne moo nekk ci kanam moom mooy Altaay Altaay moo nekk ci kanam le maire le maire Altaay le maire Darou Sam Darou Sam Adja Kolle mi ngi ci groupe bi Adja Kolle mu ngi ci groupe bi waaw baax waaw trève mi ngi ci groupe bi. Trève mi ngi ci groupe bi waaye Altaye nekk ci kanam waaye fas yi ñëw nañ ci kawam fas yi ñëw nañ ci kaw Altaye ci tournal bi waaye Altaye yokk na li muy def Altaye yokk na li muy def Altaye yokk na li muy def waaw léegi ñu boucler li nga xam ne mooy 1000 mètres yi léegi ñu boucler 1000 mètres yi Altaye moo nekk ci kanam jockey bi ko war mooy Ousmane Sow ñoom ñëpp ñi ngi. ñoom ñëpp ñi ngi def waaw deuxième peloton de tête bi deuxième peloton de tête bi waaw numéro 3 numéro 3 ñoo di numéro 3 ñoo di ñëw na ñoo di ñëw na altaye nekk ci ligne bi mooy xacc bu weex bi ñoo di ñëw na ñoo di ñëw na waaye daaru saam jege na daaru saam jege na ñoo di ñëw na Adja Kole ñëw na ci biir groupe bi Adja Collé ñëw na ci biir groupe bi waaye Altaay moo génn ba tey ah dàq waaw Adja Collé génn na Adja Collé génn na mami mami Ngoné eh, trève génn na trève génn na trève jox na ñaari longueur le maire le maire ñëw na le maire ñëw na le maire ñëw na dawalaat nañ Adja Collé dawalaat nañ Adja Collé mu ñëw en deuxième position waaye trève a nekk ci kanam ba tey trève mène le peloton Trève jox na leen ñetti longueur Trève a nekk ci kanam 200 mètres moo leen dese à l'arrivée 200 mètres moo à l'arrivée 200 mètres moo leen dese à l'arrivée diggante ki nga xam ne mooy Trève Adja Collé Fall Trève Adja Collé Trève Adja Collé Darou Sam Trève premier numéro 5 Trève deuxième deuxième Darou Sam troisième numéro 9 troisième numéro 9 le maire quatrième Adja Collé quatrième Adja Collé trêve raw na mbokki amateurs yi mbokki turfiste yi ñëwaloon nañ leen fi nga xam ne mooy hippodrome Ndiaw Macodou Diop ci septième journée bu comité national de gestion des courses hippiques gis ngeen course yi ni mu demee di leen wax nag ñoo ngi leen di jiix daje la huitième journée muy am fii ci hippodrome Ndiaw Macodou Diop fii ci Thiès ñuy waajal nag li nga xam ne mooy grand prix assemblée nationale muy deuxième classique de la saison hippique muy neuvième journée bi groupe 2 war ko daw ñoo ngi leen di jox dig daje dima samedi dimanche bi di ñëw incha allah.